أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ñu ngi ak yonent yàlla huud alayhi salaam tey mooy ñetteelu dars dars bi passé bokk nañ ci liñ jàngoon mooy xam ngeen ne Huud def na bépp effort pour ci nit ñi ko yàlla yónni woon nit ñi daal di jub bépp façon waaraate bépp façon njànglin bépp façon doxalin huut làmbatu na ko jéem na cee jaar waaye nit ñi te ticc lànk ba ñu wuy si woote yàlla mu ne lam yantafiu bi ay mawisa mbooleem waaraate yi jëriñoo wuñ ci dara lan moo tax jëriñoo wuñ ko nag mooy yàlla tabaraka wa taala moo kasta seen xol yi yàlla moo tëj yoon yi nga xam ne dëgg ak leer fa la war a jaar daal di dugg ci seen xol ñu daal di wuyu si yàlla moo tëj foofu loolu moo tax gaa yooyu mënuñu woon dégg waaraate bokk na sax ci liñ ko wax moom yonent boobu muy Huud borom bi tabaraka wa taala diñ ko nettali ci Qur'an mu ne gaa yi nee nañ Huud qaalu sawaun alayna aw azta aw lam takun min alwaidin in hada illa xuluqu alawalin wa ma nahnu bi muadabin nit ña Huud doon waar bokk na ci li leen Huud wax qaalu nee nañ ko yow Huud sawaun alayna moo yem ci ñun waar nga ñu walla waarooñu ñaar yépp a yem bu la neexee nga waar ñu bu la neexee nga bañ a waaraati ñun sax yaakaar nañ ne wax dëgg yàlla boo ñëwee di ñu waar loolu daal jikko jikko nit ñu baax ñi la rek nit ñu baax ñi ñoo yor jikko yoo xam ne fu ñu gis kuy def safaan rek ñu taxaw jéem laa waar pour nga bàyyi lu bon li daal di dellusiwaat yow daal jikko nit ñu baax ñi nga yor yow xuut waaye nag ñu ngi lay yëgal ne ñun ñii wa ma nahnu bi muadabin ñun kenn duñu mbugal ñun lu neex def waaw léeg-léeg ndeysaan nga dégg wax yu mel noonu ci sunu réew mi gis ngeen ne du hasard chaque jour ma wax leen ko yàlla dinu nettali histoire yonent yi pour ñu mën cee day talu gis nga tey bëri na nga ñëw di waa ñu ne wax ñi dañuy sonn rek ñuy perte temps quoi yenn yi perte temps la xam nga yàlla du bind nit di ko lakk ñaata yoon ngay dégg loolu ci Sénégal wala sax nga dégg ñu ne ñun suñu yoon wii wala suñu mbir mii ku ci bokk doo dem safara yooyu ay wax la yoo xam ne yàlla daf ñuy nettali ci alxuraan pour ñu bàyyi xel ne yàlla lu mu wax dong moom mooy dëgg bokk na ci li ñu wax Huud ñu ne ko yastawi indana tazkiruka lana wa adamihi fala nubali bima taqul in hada illa xuluqul awwalin nga waaraate nga bañ a waaraate moo yem ñun dañu jàpp ne yow dangaa yor jikko nit ñu baax ñu njëkk ña rek loolu seen melokaan la ñoom nit ñu baax ñooñu waaraateeg bañ a waaraatee yam ñun duñu lakk bokk na sax ñoom lu ñu gëm ñoom nitu huut ñu ne ñoom ñu ngi ci diine nit ñu njëkk ña seen diiney baay seen diiney maam ak seen diiney mag ñu njëkk ña ñoom nee nañ yoon woowu lañ jaar yoonu mag ñu baax ñooñu la ñu jaar dañuy dund ni ñooñu dunde woon dañuy dee ni ñooñu di deewee ëllëg yowmal xiyaam kenn du leen dekkil loolu alxuraan moo nu ko nettali moo tax ñu ne wa ma nahnu bi muadabin ñun kenn du nu mbugal bokk na ci li tax kenn du nu mbugal mooy dañuy dund li sunu baay yi doon dund ak sunu maam yi doon dund na ñooñu doon dundee ñun noonu la ñuy dundee la ñooñu doon def ñun loolu la ñuy def kon ñun kenn du nu mbugal bal innahum zakarul illa sax nag fi adami istijabatihim li huut ñoom sax yemuñ rek ci bañ a wuyu si wut waaye dañ koo wax lu tax duñ la wuyu si da ngay wax ba sonn mais ñun li ñu jàpp duñu ko bàyyi lu dul yowmal qiyaamati wax nañ ko li tax ñu jàpp ci loolu ñu jàpp nee nañ ko annahu basharun yow mbindeef dong nga naan yàllaa la yónni yàlla dina gis mbindeef di ko yónni nit wa hum yuriduna min allah an yursila ilayhim malakan rasulan ñoom dañoo bëgg yàlla au lieu muy yónni yonent na yàlla yónni benn malaaka malaaka bi ñëw wax ak ñoom pas yàlla di yónni benn xale boo xam ne fi nga fi nga juddoo fi nga jànge fi nga màggee moo tax soo waxee ñu ne la kaña nga fi juddu kaña nga fi màgg kaña nga fi jàng ñetti kaña kon ñoom lan lañ bëgg mooy na leen yàlla yónnee benn yonent malaika malaaka bi ñëw wala ne leen yàlla yónnee mbindeef moo xam ne dafa wuute ak ñoom mais pas yàlla di leen yónnee benn nit koo xam ne ci ñoom la bokk xam nañ ndeyam ak baayam ci seen kanam la juddoo amaana sax ñoom ñoo ko tudd ndax yàlla du yónni ko mel noonu ah ñun daal na yàlla yónni malaaka qaala taala borom bi ne wa qaala almalau min qawmihi alladina kafaru wa kaddabu bi liqaai alaxira wa atrafnahum fi lxayati dunya ma hada illa bashar mislakum yakulu mima yakulun yakulu mima takulun minhu wa yashrabu mima tashrabun wala in ataatum basharan mislakum innakum idan la khasirun saa yoo déggee mala alquran dafa bëri lu yàlla di wax qaalal mala mala saa yoo ko déggee rek benn mbooloo lañ bu nekk ci dëkk du ñu bari mais ñoom ñoo yor ñoom ñoo yor mbiru dëkk ba du ñu bari nag de mais ñu tuuti ay nit yu ndaw la ñuy nekk mais dañuy képp lépp lu leen neex ñu def lu ñu bëgg mooy am lu leen neex ñu dogal mooy mala borom bi dañu nettali huut daje woon na ak mala boobu borom bi nañu qaala al malau min qawmihi alladina kafaru benn kuréel ci nitu huut yi ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla wax nañ yemuñ ci weddi ko waaye wa kazzabu bi liqaai al axira waaye ñooñu nag foog ñu bàyyi leen xel ndax yàlla nee na wa atrafnahum fi lxayaati dunia chaque jour yàlla da leen di may gis nga mala boobu yàlla di wax yàlla da leen di may ñu am ñu am doole dañuy am alal moo tax fu ñu bëgg a jëme nit ñi jëme leen fu lu ñu bëgg a tere tere ko lu ñu bëgg a def def ko parce que dañuy yor alal moo tax ñu am kàddu nit ñi lan lañ leen di ragalee c'est parce que yor nañ tuut ku leen déggalul doo ci am moo tax yàlla mu ne ñooñu mayoon naa leen xéewal ci àdduna ñu ne ma haza illa bashar kii nii di wax ak yéen naan yonent la yàllaa ko yónni mais moom nit la mbindeef la bu yàlla bind mislukum comme yéen ñii pour ñu wax nit ñi ne huut nit la comme nit ñi ñu ne yakulu mimma taakuluun day lekk ci li ngeen di lekk wa yasrabu mimma tashrabuun day naan ci li ngeen di naan kon naka lay waxee yonent la yàlla ko yónni léegi lan lañ nit ñi dégg foofu ñoom lan lañ bëgg a wax kon yàlla yu warul yónni kuy lekk warul yónni kuy naan warul yónni mbindeef bu nuroog nit ñi kon na yàlla yónni malaaka wala mu yónni jinne wala mu yónni beneen mbindeef boo xam ne daal nuroowul ak nit ñi yemuñ ci sax wane huut ne mbindeef la ne nit ñi day lekk di naan comme nit ñi waaye dañu ne wala in ataatum basaran mislakum innakum idan la xaasiruun su ngeen toppee mbindeef mu mel ne yéen kon yéen da ngeen di perte pour bëgg nit ñi bu ñu topp huut ñoom na leen nit ñi topp looloo tax gis ngeen yonent yi suñ la laajee ñi gën a sonn ci kaw suuf mooy yonent ndax yow nga ñëw ci benn dëkk ñëw ci benn gox fekk nit ñi tàmm lu bon di fo di caaxaan ñii di bokkaale ñii nga bëgg a ñëw fexe ba nit ñooñu bàyyi loolu am nga problème moo tax lu ne dinañ la ko dëkkal di ngeen gis léegi ci kanam ginnaaw ba ñuy waxee ne kii mbindeef la kii ne yéen la mel day lekk di naan kii lan ngeen koy toppee yamuñ ci loolu wa haahum yunkiruuna albaas dañoo weddi sax bég dég wa zallu raasixiina fi gayyihim wa dalaalihim xata wasalu bihim al amra ila inkaari albaathi walxisaabi waljazaa yamuñ ci rek ci gàllankoor huut bu ko kenn gëm waaye dañoo weddi sax allaaxira ne am na bu kenn gëm allaaxira ñu continuer ci seen réer googu ba mbir mi yegsi leen yóbbu leen foo xam ne gëmatuñu ku dee yàlla dina la dekkil gëmatuñu ne ëllëg allaaxira yàlla dina fay comme tey rek di nga dégg nit ñi ndeysaan nit ñi gëm nañ dee mais au fond allaaxira lañ gëmul da ngay dégg ñu ne est ce que àllaaxira dëgg la est ce que àllaaxira dëgg la da ngay dégg ko wax loolu est ce que àllaaxira bi ñuy wax dëgg la est ce que dëgg-dëgg yàlla bu reyee nit ñi dina leen dekkil léeg nga dégg ku la laaj loolu ñi eggoon nañ foofu ñoom it yemuñ ci loolu waaye dañoo wax huut ne ko ayaidukum annakum ida mittum wa kuntum turaban wa idaman annakum muxrajuun waaw yéen waa jii di waaraate ne yonante la yàllaa ko yónni ndax moom daf leen di dig ne yéen bu ngeen deewee ba ñu suul leen suuf si lekk seen yàpp seen yax yu funax seen kawar yi tasaaroo yàpp yi ñoppatiku ndax yéen ñi da ngeen di delluwaat nekk ay nit wa kuntum turaaban wa idaaman annakum muxrajuun ne da ngeen di dekkiwaat génn li ngeen di gëm loolu xam nga lu aaya bi teg hayhaata hayhaat lima toadun loolu sori na gis nga moo tax ma wax leen ne yonent yi dañoo yàgg sonn yàlla di ñu nettali nag seen coono fa ñu jaar ak seeni nit ndax ñun ñu bañ faa jaar ak sunu yonent ndax képp ku mus a opposé yonent musiba moo la dal yonent yi dañoo ñëw di defar kaw suuf képp ku leen bëgg a gàllankoor yàlla dalay alag gis ngeen ñii li ñu wax ut yemuñ ci sax wax ko ne bu ñu deewee pour ñu dekki loolu sori na waaye dañoo continuer aaya bi yàlla mu ne in hiya ñoom ñoo wax ci seen gémmiñ ne in hiya illa xayatuna dunya namuutu wa naxya wa ma naxnu bi mu bi mabusin in huwa illa rajulun iftara ala allahi kadiban wa ma nahnu lahu bi muminin yemuñ ci wax ne nuux li ngay wax amul ku dee doo dekki waaye dañu ne ko ne dañuy dund rek bu ñu deewee jeex na dara du xew ginnaaw dee ginnaaw dee bu ñu deewee ba ñu suul ñu ci armeel yi suuf si mooy lekk sunu yàpp lekk sunu yax dekki amul ëllëg kon bu ñu sonal xam nga lu ñu teg ñu ne in huwa illa rajulun kii benn góor la benn waay la rek boo xam ne iftara ala allahi kasiban dafa fenal yàlla lan la fenal yàlla nee na yonent la yàlla ku yónni day fen wa ma nahnu lahu bi muminin munoo fexe ba ñu gëm la nag da ngay sonn rek lii nga fi bëgg a jële fii lañ fekk sunuy baay ak sunuy maam di ko def fi nga ko fekk fi nga koy bàyyi allahu akbar wa ma nahnu lahu bi muminin munoo fexe ba ñu gëm la yow xuut da ngay sonn lii lu fi desati hakaza kazaba qawmu huud nabiyuhum nitu huud yi ni la ñu weddee seen yonent ñu ne ko li ngay wax amul yàlla du dekkil yàlla mënul rey nit di ko dekkil loolu du dëgg c'est faux nit du dem ci armée li suuf si lekk ko pare yàlla defaraat ko yàlla mënul dekkilaat nit ginnaaw ba mu nekkee suuf yàlla mënul defaraat beneen bindeef noonu la ñu weddee xuut ne ko da ngay fen yàlla yónniwu la waxoo dëgg waaw yaa bëgg a tourner nit ñi ci say xalaat rek mais yàlla mus laa yónni waaye mbokk yi alquran wax na wa man yatawakkal ala allahi wa xasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la ku jàpp ci yàlla yàlla doy la nee na lam takun daawatu hud alayhi salaam masbuha bi mujiza li yaraha qawmahu fa bada haulai lutat marhala jadida min aljidal walistikbar fa talabu min hud alayhi salam an yatiyahum bi mujiza liyusaddiquhu wa illa fahum lan yatruku alihatahum bi mujarradi kalimatin yasmauna minhu alayhi salam ci foofu la gaa yi tëralaat beneen beneen façon xeexin xeex yoonu yàlla chaque jour ay yoon la ay étude la ay xalaat la yu nit ñi di xalaat di ko jéem a jaaral doomu aadama yi loolu moo tax ngeen dégg ci alquran yàlla mu ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum du ñu deñ di leen xeex xeex yoonu yàlla ay étude la jamono bu nekk noonu yàlla yi dañu nelaw di jaaral ay yoon ay xeex nee na foofu la ñu tërale yeneen yoon commencé naan ko waaye yow dëgg la sax mën nañ nangu ne yàllaa la yónni mais nag lan la la jox ana mujiza bi ana mu ana kéemtaan bu la yàlla jox fekkee yàllaa la yónni lan la la jox ana kéemtaan bi Moussa indi woon na yat Saalix amoon na gëléem Moussa xaroon na géej gi yow Isa da doon dekkil ku dee comme yow yàllaa la yónni waaw waaw jox ñu nag wax ñu lu mu la wax lu mu la jox mais ay baat rek ay baat ñu ne yàllaa ma yónni rek di jàng ay mbir ñun loolu duñ la mës a duñ la mës a gëm duñ la mës a gëm foog rek nga wax ñu. nga wan ñu kéemtaan yu la yàlla jox mbokk yi ñu ne ko soo ñu indilul kéemtaan du ñu musa bàyyi sunu yàlla yi ñuy jaamu qaalu yaa huud maa ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi taariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi muminin yahud soo ñu indiwul lu leer nañ kéemtaan bu bàyyeekoo ci yàlla na nga yëg ne ñun ñu ngi fii toog ci sunu yàlla yi di bokkaale rek duñu mus a bàyyi bokkaale duñ la mës a gëm wa maa nahnu bi taariki alihatina ñun duñu mus a bàyyi sunu yàlla yi duñu mus a bokk bàyyi bokkaale ba nga indil ñu lu leer ndeysaan léeg-léeg nga ñëw naan nit bàyyil bokkaale bàyyil bàyyil téere yi nga takk xam nga lu mu lay wax su ma bàyyee téere yi lu may takk lu may lu may takk lan laay takk nga ne ko mais da ngay muslu jëlal ayatul kursi yu jëlal qul a'udhu bi rabbil falaq jëlal ko mu ne wax rek wax rek gis nga ndeysaan ah ko ayatul kursi ku mu doy lu lay doy te amaana sax waa jooju li mu takk ayatul kursi lañ bind rek jox ko mu takk ko wala xulance bi rabbi falaq bi sax wala xulance bi rabbi naas su fekkoon ne kon takk dagan na yàlla du la xul waaye lan la wax yonent bi xul da ko ne waxal mais wax ko takkal wax ko ishrab naanal mais da ko ne xul auzu waxal maa ngi laqatu maa ngi muslu bi rabbil naas beneen bi mu ne ko bi rabbil falaq kon ndeke muslu la da ngay wax mais nekkul looy takk nekkul looy naan waaye da nga koy wax loolu la yàlla jàngal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ixwaan yi gars yi nee nañ ko ñun duñu bàyyi bokkaale lu dul nga indil ñu lu leer kéemtaan bu bàyyeekoo ci yàlla wa ma nahnu laka bi muminin ñun duñ la gëm il faut maa jiitanaa bi hujja foog nga indil ñu lay waadiha bu leer te dull ala sidiqik buy wane ne yow dëgg la yàlla la yónni su dul loolu lasna bi taarikina ibadat al asnaam min ajli qawli du ñu bàyyi jaamu xërëm yi mukk ndax sa wax ji ñëw rek ne yonante nga yàlla la yónni rek loolu daa yomb da ngay wax lu leer li mu wax kay leer na indi na téeréem yàlla yonante bu mu mës a yónni rek jox na la téere te lim leen di waxit lu jub xocc la loolu doy na ñu ne ko wa ma nahnu laka bi muminin ñun dun la mus a gëm lasna bi musaddiqina li nubuwatik du ñu mus a dëggal sa wax ji sa yonent bi ak li la yàlla yónni waaye xam nga yemuñ ci loolu sax summa nasabu summa nasabuhu ila alxabali wal junun yemuñ dañ ne ko yow dañu yaakaar ne da nga commencé di naax yow yow xuut da nga commencé di dof di perdre connaissance ñenn ñi loolu lañ ko wax ñenn ñi xam nga lu ñu wax dañu ne kii dof la dafa dof dañu yaakaar na sax yàlla yii muy xas ñoo ko teg dara ñoo sànni ci moom lu bon loola tax soo jógee jëm ci yàlla kenn du la doy lu dul nga làqatu ci ginnaaw yàlla lu nekk mën na la faa fekk nag mën nañ la rey mën nañ laa dóor mën nañ la lakk mën nañ la liggéey mën nañ la booleeg ay nit mën nañ taal sa kër mën nañ accès ci sa njaboot saa yoo jógee di yóbbu nit ñi ci yàlla li yépp mën na laa dal moo tax ku ngeen mës a gis mu jóg dem ci yàlla rek am na coono kenn mësul jóg dem ci yàlla rek mu daal di yomb foog ay jafe-jafe am ci yàlla noonu la bindee àdduna moo tax ñu ne ko yow da nga dof yaakaar nañ ne yàlla yi ngay xas bu dégg bëccëg yàlla yi ñoo la teg nattu ndeysaan lan la leen wax qaala inni ushidu allaha washhadu anni bari'um mimma tushrikuna min dunihi man dey maa ngi seedeloo yàlla di seedeloo sama bopp di leen seedeloo yéen ñii lii ngeen di wax naa bokkaale yàlla inni bari'um mimma tushrikun li ngeen di bokkaale sax man dañ naa ci du ma mus a bokkaale mbokk yi su nuux su huud waxee du bokkaale kon lu muy def mu ne inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbakum maa ngi jàpp ci sama borom bi nga xam ne mooy seen borom moo tax jullit yàlla doo nga war na ko doy jullit su ko yàlla doyee rek wa man yatawakkal ala allahi ku jàpp ci yàlla yàlla doy la mais da ngay dégg nit ñi ñu ne yàlla dafa di tax yàlla kese kese wóoru il faut yàlla ak yow yàlla kese nga gëm yow mbokk yow li nga nekk ah mbir mi mbir mi léegi li lii ci la de dëgg la sax nag li ngeen di wax dëgg la waaye xam nga nag foog am na loo xam ne nag fii lañ ko fekk ci lay bokk nag est-ce que loolu ñu ci war a boole bokk na ci est-ce que loolu amul lu mu ci yàq loolu kan moo ñu sant ñu boole ko ci yooyu yëpp ay mbir la yu jar a jàngat yu jar a xool waaw yàlla kese moom dëgg la yàlla kay moom sax wax dëgg yàlla moom la nit ñi war a gëm nag waaye xam nga jamono neexul léegi boo bëriwul ñu bëri daanu sa kaw comme foog nga rek nga ut loo défense ba jarale ngay bokkaale ba jarale ngay dugg ci sirk dugg ci bidaa loo xam ne yàlla du la ko jéggal jullit yàlla war na koo doy mu daal di jeex amul leneen mbokk yi mu ne inni man huut lajaatu ila allah maa ngi nëbbatu ci sama boroom wa wa fawwatu amri ilayhi sama mbir yépp yàlla laa ko jox keneen bokk ci gis ngeen moo tax ibrahim keroog ba ko yàlla dugalee ci safara si wala bi ñu ko takkee di ko waaj a dugal jibril daa ñëw ci moom ne ko ibrahim loo bëgg ma defal la ko mu ne ko bu dee yow la awma ci yow soxla bu dee sama borom nag xam na li ma nekkee loolu mooy tawakkulu ala allah bu dee sama borom du ma seetaan bu dee yow nag dafa am loo ma bëgg a réglal bàyyi ma ak sama borom loolu mooy iman loolu mooy tawxid mooy sa borom ah waaye saa yoo xëyee suba fa nga jël benn sengoor ne ko nii ndeyjoor ne ko nii càmmoñ ne ko nii sow takk ko ci sa ndigg juróom-ñaari yoon teg ko ci suuf jéggi ko sooy génn sa buntu kër foog nga xëpp ndox ba mu tooy foog nga tourner ay affaire fu foo jullee suba pare foog nga rëdd benn rooroo bu ngand ne la nii wëral ko juróom-ñaari yoon yooyu bokkul ci diine mbokk yi léeg-léeg nga gis ne ndeysaan nit ñi ginnaaw julli façon ñaan bu nekk ngay gis ngay gis koo xam ne naan ni di càpp suuf si moket yi naan nii du ma wax sax suuf ndax moket lay capp naan nii di fóon dugal ci nopp yi dugal fii bind dessiné ci moket yi dessiné daal di diw nii nii daa def benn rond waaw loolu fu ñu ko jëlee yon bi saa salaam nee na bu ngeen sëlmaye wax leen astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salaam wa minka salaam wa tabarakta rabbana وتعاليت يا ذا الجلال والكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك nga jàng ayatul kursi loolu lañ jàngale nga def say tas mi yu nekk ngay gis te beneen bi mooy su yonent waxee lii barke démb dama wax benn waay ci benn waxtaan bu ñu doon def ci benn kër rek waa ji ne ma est-ce que mën nga firi alif laam mim ma ne ko déedéet mënu ma ko dee mu ne ma ban borom xam-xam nga gis bu ko firi ma ne ko téere tafsir yëpp am na yu ma liir yu bare bare bëri mais kenn mënu ko firi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam firi ko woon dafa ne allahu alamu bi muraadihi bi zalika yàlla xam li mu ci nam mu ne ma sunu sëriñ mun na ko ma ne ko ah mu ne ma ñun sunu sëriñ firi na ko ma ne ko ah yonent bi de mënu ko woon firi mu ne ñun sunu sëriñ mun na ko comme ça ma ne ko léegi nag loo bëgg a wax foofu seen sëriñ moo raw yonent bi mu ne ah xaw ma de en tout cas mosul sëriñ mun na ko xam nga kufru weesuwul loolu yéeg gis nit ñi xam nga dafa am ñoo xam ne dañ leen waxoon dafa am lu ñu wax rek yàlla mu ne leen génn ngeen ci diina wala qad qaalu kalimatal kufri wax ngeen baatu kéeféer yéen wedd ngeen ginnaaw ba ngeen gëmee moo tax fi mu nekk nii réew mi ñu bëri dañuy dox mais ay yéeféer lañ xoolal ñu ne la yonent bi mënul lii nga ne yow sa sëriñ mun na ko sa kilifa mun na ko ci loo xam ne ñu ne la yonent bi nee na mënu ko ndax yonent bi lu mu mënul ci umma bi am na ku ko mën ah waaw waaw waaye dëgër fit rek ku toll na yonent yàlla muhammad mu ne allahu aalamu bi muraadihi bi dalik yàlla moo xam li mu ci namm yow nga ne am nga yeneen yoon yoo jaar ba yàlla feeñu la firil la ko yonent yàlla muhammad xamul yoon boobu yeneen yàlla jubal il faut ñu xam ne mbiru diine du lu ndaw du lu du ay fo du du du jékki-jékki rek wax ci diine bi lu la neex déedéet diine ay texte la mu ngi nii alquran la ak sunna yàlla bi mu wàccee quran dafa jox yonent yàlla muhammad ne ko jàngale ko yonent yàlla muhammad ñëw jàngale téere bi ba dem aboubacar ñëw omar ousmane ali ñoom imam malik shafi abu han hanifa ñoom ñëpp kenn musul firi alif lam mim ku ci wax rek danaan allahu alam li sahaaba yi waxoon yonte bi li mu waxoon loolu la sahaaba yi wax sahaaba yi lu ñu waxoon loolu la taabiin yi wax ñeneen ñëw léegi ne mën nañu ko firi nga gis ku naan man mën naa ko non pourtant lu simple la ah pourtant jëfewul ah léegi kon ñële dañoo yambare xanaa yow yaay ngand bi ñee dañoo yambare ba yow nga xam ko ñoom xamuñu ko déedéet ñee dañoo maandu ñee dañoo yemloo fi leen yàlla yemloo woon yow nag da ngaa ñeme yàlla loolu kese mooy wax ci moo tax am na benn aaya boo xam ne ñun ñëpp dañ koy wax guddeeg bëccëg mooy subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun gis nga walhamdulillahi ñëpp mën nañu gis nga liir yi sax bébé yi sax mën nañu ko lan moo tax yàlla wax aaya boobu bi mu tàggee boppam moom ci ay melokaanam yu sell yu rafet yu yiw yi ba pare dafa ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuun sell ñeel na ma man yàlla tabaraka wa taala maay borom màgg gi maay borom tedd gi sell ñeel na ma ñii li ñuy wax amma yasifuun ñii li ñuy wax noonu laa mel melu ma noonu li ñuy wax noonu la man yàlla sori naa foofu xam nga lan mooy lan lan moo tax ma indi leen aaya bi mooy baat bi mu ci teg mooy wasalaamun alal mursalin yàlla na jàmm nekk ci sama yonent yi bu tax yàlla tagg boppam ba pare daal di ñaanal yonent yi parce que yonent yi ñoo nangu wax yàlla li mu waxoon dong daal di fay yem yokkuñu wàññiwuñ te yàlla mu ne yàlla na jàmm nekk ci sama yonent yi ñoom fa ma leen yem loo yem nañ amul benn yonent bu ñëw di déborder naan waaw yàlla moom benn nganda la moo xam ne sa tat tat tat déedéet ñoom yàlla leen yem leen fi ñu yem wasalaam war a mu ne leen wasalaamun alal mursalin yàlla na jàmm nekk ci sama yonent yi nga xam ne ba ma leen yónnee fa ma leen yem loo la ñu yem kenn amu ci fit naan moom yàlla la ma ma est ce que mu ngeen dégg yonent bu ne man yàlla laa man man ëllëg damay poñe yàlla ne ko hé attention ñii samay dañu dugg fal force déedéet fii da ngay dégg koo xam ne nee nañ dafa pes dafa pes malakal mawti pëf bët bi toj ruu yi daal di war de mu daal di dundaat dégg ngeen ko fi dégg man de dégg naa ko lu tax moom bésu malakol man moo jël waa moom.
waaw dégg naa xam nga yooyu ay mbir la yoo xam ne yal nañu yàlla musal ixwaan yi kon mu ne moom xuut man de sama mbir yëpp jox naa ko yàlla taala maliki wa malikukum yàlla moomu mooma moom moo leen moom ku ñu moom yàlla ku moom sunuy baay ku moom sunuy ndey ku moom sunuy maam kan moomam addina bi yàlla tabaraka wa taala yemu ci loolu mu ne ma min dabbatin illa huwa axizun bi naasiyatiha amul lenn luy dukkat waxul nit de luy dukkat xam ngeen luy dukkat daat boobu mooy lan baatu dukkat xam ngeen mooy lan mooy luy dox amul lenn luy dox mbaa muy raam mbaa muy naaw lu dul yàlla moo téye ci nos gi yàlla lu ko ci neex mu def ko ma min dabbatin fil ard amul lenn laa la wax lu ngeen mën a gis ci àdduna rek yàlla moo téye nos gi ruuxam ci loxo yàlla la nekk bu neexee yàlla mu yendu bu neexee yàlla mu fanaani léegi alaaxira barzaq te mënul rëcc yàlla tabaraka wa taala moo tax wut mu ne ku mel noonu dinaa ko fi gis di di jox sama bopp koo xam ne xamul ndax tey dina fanaan loolu mooy ufawidu amri ila allah maa ngi jox yàlla sama lépp ndax lépp yàlla moo ko yore maa ngi yow bu ñu bokkee ku yor suñu bakkan est-ce que man kon dina yell ma jël sama bakkan di la jox naan la xoolal ma ko de loolu la nit ñi def tey nga gis ku ñëw ne ko ku ñëw ci ni ne ko aslamtu nafsi jox naa la sama bopp baat bu garaaw a ngi noonu aslamtu nafsi jébbalu naa ci yow jox naa la sama bopp kooku nga jox sa bopp xamul ndax moom dina fanaan moom te pourtant alxuraan bi mu ñuy jàngal ibrahima bi ko yàlla ne aslim lu mu wax is qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lillahi balqiis bi mu demee ci suleymaan fekk suleymaan gouverne nit yeeg jinne yi mu gis ci nguur goo xam ne xamul lii fu mu tàmbale xamul lu mu yem mais ba ko suleymaan ne jébbalu lu mu wax aslamtu maa suleymaan lillahi rabbil alamin waxul aslamtu ci suleymaan de dafa ne aslamtu maa suleymaan fan lillahi lillah maa ngi jébbalu ànd ak suleymaan jëm ca yàlla waxul ne waxul mënoon naa wax suleymaan jox naa la sama bopp eggal ma ci yàlla yow pourtant alxuraan la ñuy jàng ñun mais li ñuy jàng ci alxuraan duñ ko jëfe jamais te de deux li garaaw mooy da ngay gis ay dajjaal yoo xam ne dañu yor téere bi di di di ko firee nu mu leen neexee te téere yi kenn mënu ko firee nu la neex lu tax ñi ko doon firi firi nañ ko dëppi yonte bi firi na ko dëppi dëppi moo tax yàlla mu ne alquran inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la dama dama message benn xale boo xam ne xale bi dafa dof xamul dara ci àdduna lu dul quran munu sax sol yére munu sol tubéy bopp bi rek mooy bouger yaram bi dara du bouger mais aaya boo ko laaj mu wax ko soo ko laajee numéro bi mu wax ko dara la mënul ci àdduna lu dul quran dara xamul papaam lu mu tudd xamul yaayam lu mu tudd mënul sax sol liiru boppam xoolal soo ko doon laaj ndax yow mokkal nga quran xam nga lu mu lay tontu xaafiz xaafiz na teg aaya boo wax mu eggali ko amul aaya bu ñuy wax ci quran te du ko eggali soo ko ne numéro aaya bi mu dóor aaya bi soo ko ne ban xaaj la nekk mu wax soo ko ne hisib bi mu wax mais boo ko nee noo tudd mu noppi soo ko ne sa papa ak sa yaay du xam soo ko ne loo añee xamu ko nii lay def di la xool nii waaye alxuraan moom bul ko bul laal bul laal loo wax mu eggali ko gis nga téere yàlla la inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun man yàlla maa wàcc téere bi téere bi maa koy aar mbokk yi yemuñ ci huut huut bokk na ci lim wax mbokkam yi wax ji dafa bari su fekkee daal yow yaay yàlla tawal xeer xam nga loolu ngay dégg Sénégal yi di wax boo dee yàlla tawal doj boo dee yàlla tawal glace waaye yow doo tus yow waaye yow doo naani ah eh, la ilaha illallah loolu lañ doon wax wut ko doo tus sa wax dafa bari sax xoolal xam nga la la yow yàllaa la yónni waaw léegi demal nga ne yàlla na daaneel asamaan suñu kaw demal nga wax ko ko moo la yónni demal nga ne ko na daaneel asamaan bi ndeysaan mu ne ah man day wax dëgg yàlla fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum su ma leen waxee ngeen bañ a dégg wax dëgg yàlla man munumaa daaneel asamaan bi munumaa wëlbati suuf si munumaa buux géej gi mu këpp seen kaw waaye li ma mën rek mooy li ma yàlla wax ma wax leen ko ma yem foofu yàlla nee na ma waxal wax naa léegi nag bu neexee yàlla ngeen jub bu ko neexee moom moo yor mbugal mi mu daal di koy indi seen kaw ndax yonent moom li ko war mooy wa ma ala rasul illa al balaax yàlla yónni na ma li ma yàlla yónni ma wax leen ko mu jeex kenn ci yéen nag mënulu ma dara li ma yàlla wax daal naa ko wax dama koy wax inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lépp sama borom moo koy sàmm bu ko neexee mu mbugal leen bu ko neexee mu bàyyi leen wa haahum yastaajiluuna al azab ñu ngi nii nag di yàkkamti mbugal mi naan ko mbugal mi na ñëw waaw ñun tuubuñu li nga ñuy wax nañ tuub nañ bàyyi nangam ak nangam defuñu ko munoo wax muus ak waane ba li nu nekk ñu bàyyi ko léegi mbugal mi na ñëw waxal yàlla mu tourne suuf si qaalu ajitana linacbuda allaha waxda wa nazara ma kaana yacbudu aabaa'una fa atina bima taciduna in kunta min alsaadiqin ñu ne Huud dangaa ñëw pour fexe ñu bàyyi jaamu sunu xërëm yi dangaa ñëw pour ñu bàyyi lool pour lan nañu jaamu yàlla kese kese gis nga ah linacbuda allaha waxdahu lu ñuy def wa nazara ma kaana yaabudu abaana ñu bàyyi sunu bàyyi lu ñu doon def am na koy waxal tey lu bare bari mu ne la xam nga lu mu lay tontu mooy aaya bi ay léegi yow da ngaa bëgg ma bàyyi sama papa ak sama yaay lu ñu nekkoon mus naa wax benn xale bu jigéen yow doo muuru mu ne man sama ñun sunu kër kenn musul muuru mu ne bal sax laaj naa sama yaay nee na ñun yoon wi nu ba kenn du muuru foofu kon bu ma muuru alxuraan ñaata la ñuy wax ne inna wajadna abaana te loolu loolu ñuy wax yëpp ci diine rek lañ ko nangu soo gisee waa ji naan du ma bàyyi li sama baay nekkoon wala du ma bàyyi li sama maam nekkoon ci diine rek mais boo fekkee ku maamam doon dawal mbaam boo ko indilee 4x4 ne ko am est ce que dinaan la déedéet sama maam xamul woon 4x4 dama leen di laaj soo fekkee fi benn paa bu doon dawal mbaam nga indi 4x4 ne ko indi mbaam bi jëlal 4x4 bi lu mu lay wax jërëjëf waay alhamdulilahi rabbil alamin li moo taxoon ma jur la doom lii lay jëriñ du la wax mukk sama papa da doon dawal mbaam jërëjëf bàyyil ma dawal mbaam bi boo ñëwoon ci kër gi fekk kër gi nekk néegu ñax nga raase yëpp sànni fële ñëw indi si ciment commencé tabax ndax dañ naan la déedéet ci diine rek lañ nangu loolu koo fi ne bàyyil nangam jaamul yàlla mu ne la déedéet sama papa ak sama maam lii lañ nekkoon ci lii laay dee alxuraan daf ñuy wax ne même sa papa ak sa yaay bu ñu nekkul ci dëgg di caaxaan da ngay leen di topp ci caaxaan boobu loolu du logique gis nga loolu la ñu wax Huud ne ko ndax da ngaa bëgg ñu bàyyi sunu maam yeeg sunu bàyyi la ñu nekkoon ñu jaamu yàlla kese kese kese faatina bi ma taiduna in kunta min as-sadiqin kon nag bu fekkee lool li nga li nga wax ne moom mooy ñëw bu ñu deful lool day ñëw na ñëw na ñëw na daanu sunu kaw ndeysaan borom bi di nettali aaya yooyu mu ne fa amma aad wastakbaru fi l ardi bi gayri lxaq wa qaalu man ashaddu minna quwa gis ngeen yàlla nee na waa aad fastakbaru rëy rëylu nañ ngand ngandulu nañ fi l ardi ci suuf bi gayri lxaq lu àndul ak dëgg dañoo ngand ngandulu di wane yàlla reewande yemuñ ci sax ci ngand ngandul waaye dañu ne ñun kan moo ëpp doole li abu jahlin waxoon nee na man am naa doole bi mu jàngee alquran yàlla mu ne safara alayha tisata asar safara wa ma jaalna ashaaba naari illa malaika ah yàlla mu ne ma safara dama fa dugal ñaata malaaka 19 mu ne non xam nga nu ñuy def man damay xeex ak 15 yi yéen waa màkk ngeen séddoo kaan yi mu ne xam ngeen ne man ponkal laa bu ma nee cat cat ñetti malaaka fii ma képp ñaar ci sama tànk ndeyjoor képp ñett fële mu ne yéen waa màkk ngeen xëccoo kat malaaka yi des xam nga loolu xam nga loolu ku koy xalaat ah daneen yàlla jubal malaayika allahu akbar mooy li ñuy wax ñu ne man ashaddu minhum quwwa ana kan moo leen ëpp doole kenn ëpp leen doole ci sous-région bii ñun ñoo fi mën kon bu yàlla ñëwee tamit dara ndax ñun ñoo fi mën ndeysaan borom bi ne leen wala aaya bi lu mu leen eggalil awalam yaraw an allaha alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yéen yàlla mi leen bind may leen doole yàlla moom kay moo leen ëpp doole wala sa baay bi la jur nga nekk liir mu lay tette di la nàmpal ngay cëppi cëppi mu lay boot bu ko neexee mu ne la nii zëcc benn loxo yëkkati ba ci kaw teg bu liir bi demee ba wóolu boppam naan ko papa xoolal papa kaa ñu bëri man ak yow di ko teg dënn papa eh eh kaa ñu bëri naan ko papa ëppatoo ma doole ah boobu boobu liir bi beew na de ñu yàlla bind leen may leen doole ñu dem léegi di génne seen dënn naan yàlla ëpp mënoonu ñu dara ëppoo ñu tus yàlla ne wallaay bu ñu xalaatee kay man yàlla mi leen bind may leen doole bu ñu xalaatee xam nañ ne man yàlla maa leen ëpp doole wala ndeysaan allahu akbar awalam yaraw xanaa gisuñu anna allaha allazi yàlla mi nga xam ne xalaqahum moo leen bind wax dëgg yàlla huwa ashaddu minhum quwwa yàlla moomu kay moo leen ëpp doole wa kaanu bi ayatina yajhadun waaye yàlla ne xam nga lu fi nekk bépp kéemtaan bu ma mus a wàcc bépp téere bu ma mus a wàcc bépp yonent bu ma leen mus a yónnee ñoom weddi nañu ko wa huna fii nag wasala huud alayhi salaam maa hawlaa il utaat ila tariqan masdud fii nag la huud waxee waxee ba dem nag ba sës ba sës terminis nga xam ne amatul fenn fu mu dem wa xaana waxtul xilaak jamono bu leen yàlla di alage nag daal di jot jamono bu leen yàlla di alagee jot na fi mu nekk nag nu sës na xam na ne ñii dara dootul tax ñu dëpp ci nii ñu mel pare nañ ndax yàlla kaste na seen xol yi dootuñu dégg nu mu def mu daal di ñaan yàlla yonent yi saa yu ñu sësee rek dañuy yëkkati yàlla seen loxo te yonent moom yonent du yëkkati yàlla ay loxo wàcce ko te li mu ñaan amul amul fenn ci yonent bu ko musa def gis ngeen keroog ba nuux yëkkati ay loxoom daan ne rabbi laa tazar alal ard min al kaafirina day yaaram lu xew keroog bu yonent yàlla muhammad yëkkati ay loxoom xasatu badr mu ne yàlla mbooloo mi nga am bu bis bu ñu leen reyee kenn dootu la jaamu lu xew yàlla malaaka yi la wàcc malaaka yi la wàcc badr ñuy xeex moo tax yonent saa yu yëkkati ay loxoom rek bu dee lu baax jàmm la bu dee musiba la ñaan musiba la nu daal di sës mu daal di yëkkati ay loxoom qaala rabbi unsurni bi ma kaddabuun yàlla dimbalin ma ñii fenloo nañ ma weddi nga ma ñii fenloo nañ ma yàlla sa ndimbal laa yaakaar qaala amma qalil la yusbixunna naadimin yàlla ne ko may tuuti rek tuuti tuuti rek ñii pare nañ ñoom ñëpp danañu réccu borom bi ne fa axasathum sayxa bilxaq fa jaalnaahum gusaa fa bu'dan li qawmi zalimin tuuti rek yàlla mu ne benn xaacu moo leen jàpp malaaka moo xaacu ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di wow koŋ mu daal di dee mbokk yi dars bi di ñëw incha allah ci kàttanu yàlla loolu la ñuy jël ak lenn ci kéemtaan njëriñ yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci dars bi ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu